Sénégal amalee programme d'ajustement structurel yi ba léegi dafa yaatal ay entreprise ñi nga xam ne ni ñoom ñooy privé yi. ay Sonatel ay SDE partout l'État de donc disons le monopole de ces des capitaux de ces sociétés bu mu demee bay désengagé wu. dafa impliqué partenaires sociaux yi ci négociation et de façon stratégique. loolu taxoon rek ba atum 1999 nguurum Sénégal jëloon dogal. fasante coloré ak groupe portugais bii di Lisnav ak Dakarnave ci lépp lu jëm ci wàllum chantier naval yi. ay diir rek des ngir coloré googu jeex liggéeykat yi xamuñu ñoom ba tey ci lu ñuy mujj. naka lañ ciy demee est-ce que loolu dina sotti wala du sotti est-ce que entre euh, opérateur bi moo fi desaat wala dañ koy changé ci yan anam lañ koy changé buñ koy changé tamit war nañu woo liggéeykat yi ñu bokk ci waxtaan bi. ci yeesal yi nga xam ne ni moom lañ fas yéene jëm liggéeykat yi amalab lël ngir gën a mën a ñaax seen i ñooñ ci lépp lu jëm ci wàllum gouvernance ci wàllum passation de marché public waaye tamit ak i contrat de concession réforme maanaam dañuy changer opérateur au niveau de la réparation navale wuy chantier bi mu ngi fi mais liggéeykat yi am nañu ay inquiétude mais nañ leen boole associé leen ci ñu wax seen xalaat ba ëllëg ak si biir ñu influé wu ci processus de division décision bi nga xam ne dañ koy approprié wu nekk taxaw bokk nag man am ay action ci biir société yooyu. Sénégal di réew mi nga xam ne ni bëri nay ay avantages ci wàllum chantier naval rawatina bu ñuy waaj a exploiter ak gaz loolu di firndeel soxla nañ taxawaayu ñëpp ngir loolee mën a antu.